mais grand maa ngi nii côté 116 war a dem 125 gisanteeg Xarim Diakhoumpa ak Bo dañu war a dem salle de sport mais am na ku ma bàyyi sama kër muy Amela nee naa ko. le temps que may dellu si waat joxal ma ko album photo bi ñu commandé ko ñëw. <laughs> waaw image bii la laa jox soo ma ko doon commenté lan nga may wax kan la ak ñan ñoo nekk ci image bi. Hmm. alors sama grand ngi nii. ndeysaan keene ci ginnaaw yàlla na ko yàlla yërëm xare euh, ko àjjana ñu koy wax Vieux Guèye kan la ci moo sol lan moo sol veste bi noonu lëng ma te mbaggu grand bi noonu ok waaw ndeysaan euh, man maa nekk ne à gauche mhm. donc ki ci ginnaaw noonu benn grand la Sylvain la tudd grand Sylvain Omar Sow moo nekk noonu ci ginnaaw Omar Sow tu vois kooku Omar Sow la tu vois boo xoolee insigne boobu ci ginnaaw ñoom ñoom ñoo sponsorisé woon du ma tudd tur bi mhm. mais pour te dire que yàgg na mais dafa photo bi mi ngi fekk net je crois que ñu jóge tournée tournée Europe quoi. daf mel ni da nga doon tourné rek quoi. waaw non fii fii moom cosaan la woon. lii moom cosaan la mais bien sûr dañ doon tourné dañ doon tourné kër gi. <laughs> Hmm. mais tey nga toog fii moo jox la image bi <laughs> lan la lay fàttalikul ak. mais yu nice rek quoi ay émotion ay yu nice rek ay yoo xam ne. mais grand yaa taxawoon na la nii sol affaire bële. mais maa ngi noonu sa gauche da nga dawal de <laughs> mais lu bi changé wul quoi. <laughs> waaw gis nga ko mais temps yàgg mais li yàgg na lii est ce que doy quatre vingt je crois que ba léegi quatre vingt neuf quatre vingt sept. waaw gis nga de nee naa c'est la magie de la télévision. waaw lu làq du ñu génnee ko. mais New York jamono ji neige bu méttee fi wàcc mais amee laa jox ko beneen image ñu xool. Euh. <laughs> ah waaw lii euh, lii suma suma suma gars yi la fële en Italie. ki mhm. euh, tax ak soliste bi nii mi ngi tudd Mario. Mario. Euh, keene ci ginnaaw bassiste boobu mi ngi tudd Daniel Daniele Daniele la tudd. donc fi benn benn benn buffet la woon quoi boo xam ne bii ñun ñoo ko organisé woon xam nga lakk yàpp kii ma woo gars yi ñu ñëw xam nga ñu mel ñu répété. donc euh, waaw dañ doon waaw yëfu mag daal lañ doon def fii. donc lii mooy wane ne que daal bi nga nekkee Italie yaa ngi ci musique bi nekkoo di Modou Modou leer na. <laughs> loolu kay def naa ne ñëpp xam nañ loolu. ba tey amee laa ci xool beneen image. kii euh, kii nii bii ñu ngi ci suñu digg vraiment. ñan ci nataal yi nii. kii ma Moussa Ngom la may yàlla euh, Moussa Ngom Moussa Ngom yàlla na yàlla yokk leeram. amiin sama grand Omar. maa nekk noonu seen ginnaaw. Euh, donc euh, photo bi nii moo mooy photo Soweto. Soweto c'est vrai Soweto te ñu clip ko. donc muy benn CD bu tuddoon people. people waaw voilà donc euh, photo bu am solo nga nii parce que bii mi ngi ñu fekk vraiment ci digg wër àddina. digg wër àddina. waaw maa la ko wax waaw bii moom daawuñu toog. Mhm. waaw bii moom dangay ngay voyagé ñëw sax tam sa passeport jeex. <laughs> tey yéen yéen nga xamante ni def ngeen ci musique lu nekk. wër àdduna ba noppi ñëw toog. Mm. boole koog modeste ñi gis tey xale bu génnee benn single sa vidéo génn 2STV rek nga teg sa bopp ni star nga yow waratoo wax ak kenn dootoo laal suuf. waaw c'est dommage nag loolu baaxul nag nit waru nit dafa war moytu di créer boppam ennemi. Mhm. parce que gi nga star yàlla moo koy def ci nit. dëgg la. Euh, mais boo ko bëggee créer yow souvent ay problème ngay mujj andi sa bopp. Mhm. modestie bii nii ñu am ba doo soxla sax euh, garde corps. mun naa dugg fu ma neex. du ma du ma ànd ak kenn koo xam ne kii mooy doon suma sécurité wala affaire yooyu parce que jàmm bi ngay sëq nit ñi ak nit ñi di xam ci yow. am na ñoo xam ne dañu duñ la xam mais dinañu dégg xam nga ba nga xam ne dinañ la duñ la yom benn yërmande boo xam ne bu ñu naroon def lu bon ci yow sax mais dañ koy baax. donc ñun loolu moo nekkoon suñu force Super Jamono euh, wax dëgg yàlla modestie bi nekkoon benn amul amul affaire végétariat yooyu xam nga loolu loolu benn affaire boo xam ne day nekk ci yow rek quoi c'est naturel c'est naturel quoi. Euh, mais euh, boo ko bëggee xëccu nag euh, c'est vrai que gis naa fi ay yu bëri wax dëgg yàlla mais bëgguma toujours nag ñuy dal ci kii yeeg yooyu mais wax dëgg yàlla loolu bëri na fi tamit aussi génne sa benn affaire rek après mooy loolu. yéegal niveau yi bon mooy loolu. wala sa quelque waa koñ commencé la woo rek <laughs> nga ne nga ne dama busy quoi dootoo jël appelu nit ñeeg ci la amal njëriñ. di <laughs> nga busy ca busy woo sa waa koñ ñoo lay woo. yàlla nañu yàlla dolli sutura daal. amiin ma ko beneen image. Mm-hmm. nee naa la fii c'est la magie de la télévision <laughs> nee de New York à Dakar. tout est possible mais xam nga lii xam nga kañ la. waaw lii euh, yof woon kër grand El Hadj Ndiaye. El Hadj Ndiaye la ko wax. gis nga moment bi nii moom it war na de. <laughs> mais déggoo maye la Sala suma jarbaat Sala ak Abdoul. Ah. Euh, ñun ñoom bon bi ñuy xam ñoom ñoom ñu ngi nekk xale yi ay xale xale xale xale xale vraiment. peut-être ay 4 euh, ans la ñu waroon am ñoom pour te dire que ñun yàgg nañu liggéey ak grand El Hadj Ndiaye. ak soxnaam su baax si. Marème Marème. la maman Thérèse vraiment Marème macha allah kooku baax. ba dama ko wax sala à chaque fois ma ne ko yaay dafa baax. barke Serigne Touba. gis nga photo bi nii fekk ñu ngi doon def kasetu euh, ndam ak passeport. ndam ak passeport. voilà ñan ñoo nekk ci image yi. gis nga Lapa Diagne la may nuróol de. ngi noonu. ki ci topp Bob Sène. Bob Sène Boy Moussa Diouf. waay Moussa Diouf c'est maa nekk noonu. Mhm. Euh, topp ci Moussa Diouf ne dend grand bi noonu. waay euh, Alsane Djigo. Alsane Djigo euh, Omar Sow Omar Omar Ousmane Sow ñaar ñoom ñaar a bokk. waay Omar ak Ousmane ñoom dañoo nuróo sax. voilà bi nii bi ñuy def cassette yi nii ci la ñuy ñëw participer ci bi Boy Moussa Diouf. Mhm. mooy boy nga gis. Mhm. ak Omar Sow ak Ousmane. Euh, Ousmane Sow. Alsane Djigo ngi noonu Aliou Djigo Socé. <laughs> Eh, ndeysaan affaire bu nice lii ñu ko foto foofu noonu kër grand bi Yoff. tey yàlla Yoff noonu foofu lañ ko photo dañ doon xool rek waa lan moo baaxoon ci album bi mu jigi nag boo xoolee ndam ñu def ci benn euh, photo lettre. Euh, passeport ñu def ci photo passeport. voilà mais yii yëpp dañ ko doon def pour essayer. pour essayer quoi shooting bi la woon. donc lii nii kër grand bi la woon Yoff. macha allah <laughs> ba tey jox ñu beneen image. <laughs> Euh, waa lii tam cosaan la. mais lii cosaan fii. bu nekk cosaan waaw cosaan waaw waaw cosaan. DLC la mais mais mais mais ñaari ñaari gars yi nag sincèrement fàtte naa nag euh, ñan la quoi wax dëgg yàlla xam naa ne ay fans la woon yu foto woon man. gis nga ko fii xam nga boo xoolee xam ne booy laa. non yàgg nga toj fay xale laa woon. yàgg nga toj. <laughs> waaw lii cosaan la woon quoi. lii moom cosaan parce que ñun cosaan lañ doon joué ah. ñun cosaan lañ mës doon joué. waaw des fois nag ñu dem côté kili parce que temps yooyu boo xoolee super étoile super jamono bon. ñoo fi toogoon quoi euh, ñoo fi nekkoon quoi wax dëgg yàlla. mu amoon mu amoon nag concurrence bu doy waar. te xool mosu leen mosu leen waxante lu ñaaw. <laughs> concurrence su jàmm salaam rek. mais concurrence su super jamono super étoile. Euh, laa bëgg nga may ñu ci tuuti te pourtant lépp dafa doonoon loo xamante ni lu logique la. amul woon benn satanité amul woon beneen xarma yàlla mais concurrence la woon pour ku nekk gën a liggéey. may ma ci tuuti ren. mais du woon concurrence ah pour man. non concurrence la woon. non non non xam nga lu tax du woon concurrence ah. parce que. Euh, li Youssou Ndour di joué li ñuy li Super Diamano di joué du benn. mais yéen a doon booy taawu ni quoi. waa Super Étoile bokkuñu woon euh, li ñu bokkuñu li ñuy joué quoi. xam nga bon Youssou am la yore am public am. Mhm. ñun ñu am suñu public quoi. donc bon ku ci joué da ngay fees kasetu kasetu Youssou gën a neex suñu bos. bon boo demee Kilimanjaro muy toj. des fois tamit aussi suñu bos gën a neex boo ñëwee cosaan muy toj. mais cadre concurrence mosu ñu am problème yooyu parce que maa ngi rappelé wu temps yooyu grand day ñëw cosaan. ñun dañ doon dem dañ doon dem Kilimanjaro. Mm-hmm. donc moo grand bi gis nga ba léegi ay gaañ lañu. Mm-hmm. xam nga ay moo loolu rek moo lay firndeel ne ni. que mm-hmm. loolu mosut am ci ci. non soo xoolee ëllëg ci biir sax bi Youssou ak Omar defoon. ça montre ni que musique benn bopp la. kenn bopp la benn je te jure même ak grand Thione ak grand Ismaïla Lo Baaba Maal ñoom ñu ma lay limal nii ñëpp ah, ay Assane Ndiaye parce que ñoo ñëpp ay ndaanaan lañu. xam nga sincèrement euh, ñoom ma pend seek mais mosuñu ci am kenn xaar ma yàlla su bee jamono. sincèrement ay affaire concurrence moom mosul nekk suñu parce que ñun dañu yoroon suñu benn benn yoon boo xam ne bokkuñu ko woon kenn quoi. mais est que Youssou Ndour mës na créer benn way wala super jamono créer benn way ba a génnee benn way super jamono way ko xaar ba Youssou Ndour super jamono génnee la même le même jour. def loolu. mosu leen def loolu non temps temps yooyu temps yooyu temps yooyu bi. dafa mais est-ce que loolu ak musique ànd na. yow ngay woy sa moroom di way kii créé wayam ba jàpp bés bii la koy génnee yow ngay moromu waykatam nga goy la même chose génnee ko même jour. mais loolu en tant que doyen musique est-ce que loolu c'est logique quoi. ci dafa naayesul sax dafa rafetul sax. parce que affaire bi géej la. ku nekk xaj nga ci. man xiiro beeg ñaayo bi laa comprendre pourquoi ñu wax ko dugal ci musique bi. saa wujjee wujjee bi metti na trop quoi. mais mais mais amul sens quoi cest amul sens bon di topp nit ki di ko yërndu di xool li muy def ba jour ba jot mu wóor yow pare woon pour jour bi mais naa perturbé kii mais loolu baaxul c'est c'est pas bien loolu day delloo ginnaaw waxuma sax musique mais day delloo ginnaaw nit day delloo ginnaaw dëkk mais dañu gis temps yi benn single bu génn. Ah. ñu génnee ko beneen artiste aussi génnee même chose ci même jour bi clash bi bare beneen artiste jóg di waale kële keneen jóg di gaaruwaale kële tey yow en tant que doyen nee naa la tey musique su doon garab. ci racine yi yow am nga ci part ndaxte image yi ñu fi wone ku ko seetaan xam na ni que li ñuy wax firnde la ndaxte fi nga jaar ñoom ñi ñëpp kenn jaaragu ci. mais ñi ñoom ñaar ñëpp sumay fils lañu. waaw waaw euh, sincèrement. Waly Sidi Diop wax dëgg yàlla. Euh, wax dëgg yàlla mën nañu nekk ay références yu nice fii ci réew mi sincèrement quoi ma dama xamul nag lan mooy seen problème dama xamul quoi xaw ma lan mooy seen parce que man xam nga dañ kumpawu ma. dëgg la man dañ kumpawu ma wax dëgg yàlla mais daal xam naa ne daal euh, coow li ma ciy dégg euh, mën na ñàkk. Mhm. waaw parce que boo boo xam ne bi woyu <laughs> papa yi waali